jeex quoi hmm, dafa métti. métti trop Sam am na ñaari jours sax ay bu xool war nañu may 15 jours ah. su ma juumee du xool gaaw jeex ñu dem plage sama happiness. dund suñu umul xuraa li ñu naan umul xuraa est-ce que amul xuraa dund suñu hmm. parce que xam nga ak weeru koor gi nii paa bi dëgg si kër dafa ma sonal mais benn baar moom boo ko naa ko place am des mais ba bàyyi ko parce que paa bi chaque wax ah, ngeen dëgg de boo yéen boo yéen yéen a réew dëkk dëgg dëgg boo yéen yéen yéen yéen booy merde ak sab entrée xaaruma entrée ah. booy joxaat leen ñu cër boo yéen joxaat leen weeru koor gi cër père yow père booy boo ma jàngoo ma jàng ko booy yow booy yow booy bëgg naa ko noppi ah boo yéen xanaa sax la mooy des choses weeru gi ak diggu ngeen mën a jox weeru koor gi cër rusul borom nga wax xoor yow ya, yow ya, yow ya, moom yow yow moom li moo tax ndeysaan jigéen ñi amatuñ ben valeur ay euro ngeen rek da ngeen di yëg ak wàcc rek kañ ngay noppi yow dimbala ñu sa baay mooy sa papa kii eh, xanaa xamoo man ngay wër kii da man lay wër nii ah eh, eh, xam nga ne kàcc nga moo sa jot sa papa sa papa nu tuddati sax xam sama xarit la sa papa nu tuddati pardon pardon sa papa nu tuddati xamoo ko père bul lijjanti kii père dama nga dox say code da nga bañu Pape Ndiaye moom laa lay bëgg expliquer nii sama xar xar Pape Ndiaye waay. ko. am nga sax sama téléphone laa baay ci biir xam la laa bëgg nag noonu ñoo ket a jóg génn yow moom booy. lu li nga xam ne nag lii luy luy waanoo ma li ci kër. vraiment ko ay waay waay booy booy booy nag baax nga njaag. barki rabal alamin baax nga njaag te naa la xamal leen nag. maa la man maa la fu doole. kaata kaala centre banaan. dama leen dóor ba ngay bëgg a dee. xoolal te yow yow xoolal ki xam nga lay xamal nga gi. jóg pour lan. génn dugal génn kër gi laa la wax. ma jóg waaw génnal fii ah. qu'est-ce que c'est ça. booy bëgg a dee. il est ressorti allez. booy mel ni. booy soo waxee man nga toj toj eh. acca. il est ressorti. père père il est ressorti ah. qu'est-ce que c'est ça. waaw est-ce que gis nga ni ma yaaxal. naa la xamal leen nag de benn paaro du ma la ko arrière lu leer laa lay wax. mais est ce gis ma yaaxal waaye moom lan la bëgg expliquer nii. amul problème lan gis nga maa xew si kër waaw maa xew si kër dina mel ni non yow jërëjëf may wax. gis booy man faalewu ma la. est dina nga woor booy. baa ba ñu naan ndox ba pare li nga xam ne dëgg la. ku woor yow. gis nga ni ma def yow da gis nga ni ma ni ma def benn kan gis ko def noo ko def nap. am problème booy naa la xamal leen man bande laa booy. bande nga raba laa la bande wuyu mooy baay. kan eh, booy ay kon. booy am na bande nga du bande nga li nga xam ne bande wuyu mooy sa baay mu ñuus la de. lu leer man du ma sa morom ma naan maay sa baay. voilà te faale ma man moo ñuusoon rek yow. Eh, man dama lay wulli ba nga mel ne def. ay booy kon kàcc nga. wul demal yow ma wulli waat la ba nga mel ne yàqu xam nga der sax yooyu booy man lijjantu ba la kañ ngay noppi danaa la xamal leen de buñ dogee ba pare di nga am problème maa ak yow la ah, te buñ dogee ba pare moo la maa la gën a ma def la la perpendiculaire yow yaa am problème wala man maa am problème dinaa def la phosphate non booy yow reegu ma ci yow de te kër gi ma fa naa xaw irrité sax irrité xam xaw may fakk yow booy merde ay binet nelaw. wóor na koor gee métti te heure bi la koor gi di maa maanaam bu heure bi waaj a doon heure comme 5 heures 6 heures mi dem ci euh, heure ndog bi day yéex day mel xot heure bi naa ko defal naa ko. nijaay nag yaa ngi saal moom sa koor moom kooru kàccoor dëgg la. pardon ni yow nijaay chaque minute nga setale bi di dem ak a boy nak booy ndax am nga jom boy lo boy merde dinaa la njëkkoon. ok yow yow yow yow may may yow do wax ma yaa may may yow. yow yaa may may. waaw doo sama kër di mooy fauché yow ku ñàkk jom nga yow xale boy booy toog seen ndey jom. ah koor gi ngeen ñëw fi ñu la rek. jàppal naa la fii la rek. da ngay yegg saa lu mun na. pare nga

oui ma garaaw coojo. 30 000 francs dinaa ko gérer dama. yow demal nga mel ni ticket stade noonu. yow lan la sama ndigaay di doyee. booy yow ndax xam jom booy. xanaa mer da nga naan tiit lan laa jox si tiit bi ne. yambar yow ko da tiit. yow eh ma ne ginaar ma lebloo ak dibi sama nawla yaa ngee tok ma war len fay sen xaalis nga na doo ma ko fay pour lan. ya yaa mën fen. man ma mën a fen. yaa mën yow ya ma dàq dul eh! fa bay sa carte d'identité mu ngi ci boutique bi. merci soko soxla jël su dama coono la ko rek soko soxla nga fek dina ko rek ci yow nga jëm rek sa problème. yow boy ba ngay dem yalla na dé yow. fer man bàyyi ma man. après nag boy on la régler do affaire bar nga dal amol li ma wax dama nga wax ak Boy, booy la xamal nak boy bandi wo boy xam xam nga yoroo bandi. boy yoroo bandi man la dina ma bandee ngi nii. damaa war a sotti doomu booy xam nga booy bandiwaat. père baal sama yére. barki xoolal barki rawee laa leen mooy bala inoo bandi. père baal sama deewul. sama yére père. kañ ngay bàyyi mu dem kañ nga koy bàyyi mu dem laa la wax. yow. ngi xam sa gi nga yow nga yor sa bu ne kër gi di la ya, ya, ya. gitu. muñul gitu. di la muñul si biir kër gi gitu. ngay dem di raasaatu si biti yow ndijaay ma mel. gis tax ma gore régler ma potu nopp. yow régler woo de. yéen damay bay bëgg yéen bëgg kii jaay bëgg ndax jamonoy tey jii way daa bay. eh yow ku jarul ngeen bëgg yow kan Eh eh eh, may ma dañ ma may ku jarul bëgg yow kan moo jarul bëgg waxuma yow ku jarul ya, eh non divorcé da ngay divorcé. eh di jaay may sama baat. sa ban baat naa sama baat damay dem yow sa bakkan sax dama la ko sama baat de jëndal ma valise bi benn baat sama baat laa ah yàlla yàlla yow mënoo ñu mën a. yow kay gëj nga war ñu la seet mi demee lépp lépp lépp. daa ngeen dem eh, eh eh may ma baat may